ñu maa ngi leen di fay bu baax. li nga sant daal. non yow rek ñëw. waaw ah, man sa fan si numéro one laa non one dafa dafa sori zéro. zéro waaw ah, kon baax na. la ma war tey la ma expliqué tey sa teewaay fii. Euh, mm, parce que tey jii comme ñoo aaye ñu ne mën ñu bañ parce que xam nga rek. àdduna loo nekk sa ay nawle bu ñu la invité woon. nan la jàpp ne tey jii nii TikTok Award wala euh, maanaam ban njëriñ la mën a am si TikTok bi wala TikTok bi sax. Ah, am na njëriñ man gis naa ne am na njëriñ parce que même bu nekk am na njëriñ yow macha allah laal ba comme temps yii passé ne te ñu dem si yow ba maanaam avant loolu mooy war a gën a nekk avantage bi. j'ai pas compris. mais comme yow exemple mun nañu bëri jël si yow exemple. voilà voilà. mais comme beneen phénomène bu xam ne temps yii yëpp Sénégal ñu koy wax maanaam ñu xaw si biir kër boobu ñu si nekk nekk yàqu dañuy nekk si jël ay suñu jàpp di ko dugal naan seen bis lépp seen xam nga àdduna moom ñàkk rek genre yooyu su amatee nañ dawal loolu ñëpp kalian apa leen bu ko leen am benn moom ñu ñuy def ñu bëri jël Pas si yow wala faa ay dara naan waaw mu ngi réussir parce que kii ñu doon dund ngay abonné wala ay seen yu bëri day leen dara bay dem bay wane seen ay cër ba